li waraloon jotaay bi tey mooy que da di doomu Saalum di tey di doomu Kaolack juddoo fi màggee fi yaroo fi nekk nag ndaw loo xam ni ndaw lu bëgg ko xam loolu sax ndax man lépp lu ma am ci àdduna rek man Kaolack moo ma ko gënal Kaolack rek laa gëm man gëmul leneen lu dul Kaolack képp ku jàppale Kaolack rek mën nga jàppale képp ku bëgg it Kaolack rek mën nga bëgg ndax. son excellence monsieur le président de la république Macky Sall tay dayo bu am fini élection bi ñu taxaw buñ ko ci c'est normal nous ñi nek ndaw nous ñu nous suñu Nous indi indi pour jox population bi. nimbal li ak saabu ak suukar ak ay enveloppe ndax nit boo ko joxee ceeb jox ko diwlin jox ko saabu jox ko suukar da koy jox nag lim def ci cin li parce que ceeb ak suukar rek ak diwlin rek mënul togg dara. lépp loo xam ne dama koy jël di ko def sama askan du ma wax lu ma ci def tey su ma amoon milliard wallaahi la azim def ko Kaolack ndax lépp lu ma am ci àdduna Kaolack moom ma ko gënal man ñun nag du ñuy ay complexé Kaolack lañ dëkk. Kaolack lañ am lu ñu am it mu néew mu tuuti dañ ko indi Kaolack séddoo koog sunu mbokk yi parce que buñ buñ ñun buñ jugee ñoom ñu jug ndax lii ñu nekkee nii tey di ko def am na ñoo xam ne suñuy mag lañ suñuy kilifa lañ ku ci mel ni monsieur Dora Gaye ba Covid 19 bi commencé ba tey chaque semaine chaque semaine mu jël alalam dugal ko Kaolack di dimbale jeunesse bi. lo xam lo way wax mu ne la man soxlo ma ci limay def dama koy defal Macky Sall la ko son excellence monsieur le président la koy defal Macky Sall lepp lu may def dama koy def ngir sama askan parce que fi la tiosano ku ci melni Modou Yaay Rahma le président Rahma lim def jàppale askan wi ñepp gis nañ ko ku ci melni ni Demba bi DG Sénélec lim def gis nañ ko barki dembok Ndiaye la jugee Sokone le ministre Abdou Latif Coulibaly lim dimbalé ci ay ci fond problème lim dimbalé ci ay nit ëpp na 4000 ménages. donc kenn ku si nekk boo defee noonu sa gox wallahi al azim réew mi ndóol gi ñu nekk dinañ fi dañ fa jugee kenn ku si nekk la nga am nañ ko génnee ñu bokkoo ko te yàlla tax parce que fii kenn amul jàmbaar amul ku dimbale rek moo am jàmbaar amuñ kuñ dimbale kese moo am nga la nag bu ñu leen dimbale ca lañ nekk bu ñu leen ci dimbale nañ ñëw di dimbale askan wi ndax liñ doon askan wi moo leen ko def buñ jugee suñ oto yi taal suñ climatiseurs yi dugg suñ kër yi taal taal suñ climatiseurs yi askan wi la du ñun du suñu njàmbaarte donc nag la am ko génne jox ko rek aussi tamit distance yi nañ koy respecté aussi tamit foule bi nit ñi di dajaloo tamit loolu tamit sàkkuwuñ ko ndax nag sant nañ yàlla ñun waa Kaolack te dinañ ci gën maanaam dinañ ci gën a ñaan yàlla ngir feebar bañ fee dugg toog ci kër yi respecté couvre-feu yi ndax nag nguur yàlla ndokk ba ñu yàlla joxe kilifa gu mot kilifa muy son excellence monsieur le président de la république di raxas loxo yi surtout am gel hydro alcool yi nañ respecté norme yi loolu daal moo ñu indi woon tey Kaolack du xumbaay du mumbaay defuñ ko nag ngir ngistal dañ koo def ngir dañ ko war a def ndax fii lañ dëkk fii lañ cosaanoo